Euh, mbokk yi solo ñoo seetaan rek euh, mu nekk programme boo xam ne am na solo lool ñu toog fii fas yéene waxtaanee lii nga xam ne mooy 48 independence celebration mooy ne time bi nga xam ne suñ maam yi xeexoon nañ ba nga xam ne jox nañu suñ gidda mooy ne léegi yéen yéen moom seen boppa muy ko ooyee independence soo ko seetloo tamit mooy freedom euh, Adja Ndeye Jatta lan ngeen pare si bis boobu jërëjëf Ramatulaay bu màgg la di boo déggee indépendant ñëpp a ko bokk mooy at bi ñu moomee suñ boppa kon nag lii amul politique amul dara ñëpp a ko bokk ñun nag ñu yenuy suñ président bi li ñoo wax fii yëpp si kaw kàddoom dañoo wax président ne mboolum ko xam ne Gambie doomi Gambie na ñëpp génn ñu sarbile suñu indépendance bi ñun na bàyyiwuñ kenn muy UDP muy NRP mboolem koo xam ne doomi Gambie nga rek bu ganee nga ñëw teewee indépendance bi na ñu mooy freedom bi ñu enjoy suñu life fi mu nekk de seetuñ dara lu enjoy life moo gën ñu nekkee kon nañu indépendance bi da dafa rëy de parce que dafa sori hmm. dina dem ba twenty one days. la la la pare si twenty one days bi. nag. Mhm. pare nañ bés euh, ni ko commencé xam nga wax ne ajuma dañ commencé. Mhm. pour diina bi. waaw ca Sénégal bi Sénégal bi ci laa commencé na di dem belondi di dem belondi dina am bure dina am ñuy nooda dina am ñuy jàng alxuraan. Mhm. dina am euh, Mrs Jambo nekk façon loo xalaat dinañ ko am ba moo amee. 21 days ñuy njooy suñ boppa rek waaye nekkul ne APRC rek a koy njooy day ne Gambia doomi Gambia ñun ñëpp génn ñu ñoo njooy ko man nag boo gisee ma commencé di wax damaa ubbi rek flow bi mu jox ko suma liggéeykat yi ñun ñu commencé wax. ñu préparé ñu wax ko waa dëkk bi yëpp. te ñu jëlee suñ président bu baax bi boo seet ñu di ko gërëm. Mhm. moom xamul ne kii sànni na ma karta kii sànni na ma karta moom dafa Gambia la gis Gambia la gis moo te mu woon ñu ne doomi Gambie yëpp nay jóg moo te jikkoom neex ma lool moom sànni katara jeex na amul noon amul mbañ. kon na na doomi Gambie gépp loo xam ne tëral nañ ko na ñëpp cukk génn ñu dem si indépendant bi su leen nee ma sam naa naatongo bu nekk UDP ki ñoo wax yam seeka kera bugg naa gis mu génn naa itam ñu jël flag UDP ñu maac waaw wasalaam ba ko si suma loxo njaboot gi ñoom ñu wax ma déglu li pare mooy am it ok euh, ajaratu Ndeye Diatta Diagne euh, Mr. Musa Babanding si yow mi nga xam ne si executive nga yaaga nga si lan ngeen fas yéene def si indépendance bi parce que andi na mu maa wane ñaar fukki fan ak benn pare nañoo def dinañ woy dinañ fecca dinañ lekka dinay maaj dinay bëre. dinañ jàng ku leen jiw dinañ jàng waasi alxuraan li nga xam ne mooy number one sax parce que jàmm jàmm bi ñu fi am yaakaar naa ne yéen kilifa yéen a ko waral mm. Alaaji Musa awju billahi mina seytaan rajim bisimillahi rahmaani rahim aji danañ leen sant di leen gërëm di leen boole di jaalee boroom kër gi nga xam ne moo génn fii ci daan ñu defal lu nekk fi duñ ko gaaw a fàtte muy di Modou Sagna yàlla na leen ko yàlla fàttale ko ci seen xel yi yéen te ñu ngi ko ñaanal guddeeg bëccëg mbooloo mi fu mu dajee danañ ko dee ñaanal léegi ñun amuñu lu ñuy wax tey lu mooy sant président Jammeh bi nga xam ne bu ñu ne independent independent yi dafa amoon différence from 94 ak léegi independent yi am ak independent yi daan am du benn ak mu nekk dañ ko yokk waaye ren nag bu fekkee ne téeméer la dañ ko def téeméer ak juróom fukk président Jammeh ci boppam mu ne nañ woo nit ñëpp ñu ñëw bi ñu toogee moom di waxtaan mu ne dafa bëgg a ñëpp ñëw ñu bokkul ci ñun sax nañ ñëw comme ni ko ne jaata waxee léegi mooy korcoral boo xalaat ci àdduna nit ku ñuul di ko def dana am bés booba danañ woo ay gan yu màgg a màgg yoo xam ne itam dañ leen war a tëral protocole office bi dana ñëw fii wax leen ban président moo ñëw ak ban ministre moo ñëw ak ban prime ministre mooy ñëw danañ leen ko wax fii bu bés bi balaa bés bi di jot. incha eh, danañ leen yëgal ne loo xalaat ci affaire corruption boo xam ne dañ ko fekkee ci suñu maam yi daan ko def fii dana am ci diggante ñaari week yooyu nga xam ne dañ koy def. moo tax ñu ne bi ñu demee ci moom ñu ne ko dañ ko bëgg a def ñeenti fan mu ne déedéet man maa leen alaaw ubbi leen ko ak ak lu mu mun a doon ak lu mu mun a koos réew mi moom a jaral loolu ñu itam ñu delluwaat seet suñ boppa ne ko yow day li nga jaral réew mi loolu nga ñu jaral hmm. yow président jàmme léegi nag duñ def loo xam ne dañ cee dellu gannaaw dañoo lu ñu mën a defoon itam téeméer la dañ koo def muy téeméer juróom fukk man ci ma may wax foofu moom laa wax te dama comité suma bopp mboolem doomi comité bii nga xam ne danga bokk ci comité bi ngay wuyoo sa tur ci comité bii dañ ne nañu sees suñ boppa ne yaa jàmme daf ñu defal loo xam ne mënuñ ko ko fay te nañ ko fay ku la lebal danga koy fay waa réew mi ku lebal nit danga koy fay ci yoon yàlla sax ku lebal nit danga ko war a fay ñun mënuñoo fay yaa jàmme waaye danañu fexe jegeñ ko muy ci yoon bii exemple bi nag àdduna bi yëpp dana ko yëg toogoon nañ foofu ñu wax ne ñi nga xam ne ñooy cristas Gambia nga xam ne Gambia dañu am indi indépendance boo xam ne moom la Afrique yëpp am réew yëpp am moom la Gambia am loolu moo tax ñu war a def loo xam ne dinañ won ñu ne ñun ñoo moom suñ bopp kenn moomuñu tubaab moomuñu keneen moomuñu ñun moom ñoo moom suñ bopp te duñ delluwaat jël indépendance bi delloo ko keneen ñun dañu indépendant foo nii comme réew Afrique bu nekk ak àdduna bi yëpp ku am indépendant musuloo dégg ne fu fu fu ñu delloo indépendant ñun mënuñ ko delloo. Mm-hmm. kon li ñu mun danañ ko def te ki ko weddi di nga ko gisal sa bopp ñun liñ mun yëpp danañ ko woon bés boobu ak wi boobu ne danañ ko wane nit ñi di leen ñaan nag yéen ñii seen liggéey la. ab doomi Gambia bi yëpp ku liggéey ci télévision bi ku liggéey ci radio bi ku nekk na nga sol sa dàll nga dëgër comme ni nga gënoon a dëgër. fu nekk dañu bugg li ñoo def ñu àdduna bi yëpp gis ko te àdduna léegi ñu ngee gis àdduna bi yëpp ñu ngee gis ne fu xew-xew am àdduna bi yëpp ñun ñoo lay woo dina na gis nañ la nangam. même ni ñu toogee fii sax àdduna bi yëpp ñu ngi ñoo gis kon ñu ci dellu gannaaw li ñoo wax ñoo ko miin te danañ ko def moom lañ promis Yaya Jammeh di dee bi nga xam ne dem nañ ci mom tok ak mom dañ ko ne dinañ def lo xam ne ci sa bop sax lo de dañ ko def te doomi gam yee ñëpp pare nañoo def lool dana bayyi ñi ñu continue ak seen wax way fan yi di ngeen fi dégg lo xam ne lu melni ni leen wax mhm. di ngeen ko dégg ci doomi parti bi di ngeen ko dégg ci doomi gambien ñu bax yi ñu ngi wo mbolam kuy doomi gambien nga nekk Guinée Bissau nga nekk Sénégal nga nekk Mauritanie ne leen jaral ngeen ñëw fi yaa jam